Kabir TV ñu ngi leen di jëfal di rafetlu ànd bi ngeen ànd ak ñun rawatina seen émission li ñu bokk saa su ne li ñu bokk day ñëw rek seeti këru diine yi politique bi yow mi nekk ci aar ak foo mën di nekk dañ la fay fekk sikk ak yow waxtaan ci li nga xamante ni mooy actualité réew mi tey nag ñu daal di seeti benn ndaanaan ndaanaan kulli fadrin di yëngu ci wàllu média nekk ci benn euh, télévision di Walfadjri di oustaz Souleymane Diaw Talazus euh, alhamdulilah rabbil alamin euh, soxna si maa ngi lay fay bu baax a baax a baax a baax di nuyu auditeur auditrice internet yi nga xam ni saa su nekk ñu ngi bàyyi xel site bu mag bu riche bile nga xam ni jamono ji ñu toll ñu ngi liggéey liggéey bu rëy liggéey bu màgg boo xam ni macha allah. ak képp koo xamante ni yaa ngi suivre Kabir TV yaa ngi gis ni ñi ngi def amélioration yu ama ama ama am solo kon nag ñi ngi leen di bu baax a baax di leen ñaanal jàmm seen liggéey fi ngeen bëgg mu yegg fa mu yegg fa soxna Kenza maa ngi lay ziar. daal di ñëw ak yow rek ci li nga xamante ni mooy première euh, question bi mu soxal actualité réew mi di audition Ousmane Sonko dossier aji Sarr Sonko nan nga jàngatee li nga xamante ni mooy dossier bi. waaw euh, xanaa rek wax suñu opinion. wax sunu gis-gis wax sunu xalaat comme bu élection jotee dañoo ay citoyen lañu dañuy jël sunu carte dem woteel leen ñoom ñi nga xam ne nag ñooy jël sunu carte di leen woteel ji am nañu droit bu dara xewee ñun ñu wax ci ñoom moo xam pouvoir bi la moo xam opposition bi la kenn sax man benn nattu daf ma dal mooy man nit ñi duñu maam mu jëm fenn rek ma ni fa laa jëm déedéet man duma contre nit ngir daf maa neex rek ma contre la te li ma lay contrer aw ma fu ma ko teg wala neexoo ma rek du ma wax ci yow wala par force neex nga nit ñi rek damay ànd ak yow du ma genre boobu man daal li ma xam mooy boo ma laajee li ma xam ma wax la ci la ma xam li ma xam na concerné wul kii commenté kooku intéressé wul ma parce que man bokk na ci mbir euh, rarement laay seetaan commentaire mais boo ma commenté man du ma nëbbatu man maay dugg ci biir tontul sama bopp. xam nga xam nga ni kooku ku amul lu muy ragal ci li muy wax euh, dossier bi dossier bu dangereux la te naa la xamal benn affaire il faut que am lu ñu lu mu comprendre moom sonkoo Sonko dafa war a xam ni moom guddi yuñ toll jamono juñ toll mu ngi ci kàmb kàmb gu dangereuse la ne dossier bi. sénégalais yi ñoo ci maar senegale yi ñoo ci sonn lan moo tax ñoo ci maar ñoo ci sonn yow fekkewoo man fekkewu ma keneen fekkewul damay wax ni képp ku ni Ousmane Sonko deful war ngay ni preuve bu tax nga ni deful ndax li tax nga naan deful yàngoo teg ni ko gis naa gaayen bi ku yiw la gaayen bi ku am harmonie la gaayen bi ku jullite la loolu leeru la yow xam nga lu tax ndax na aqrabu ilayhi min qablil warid yàlla nee na sidit bi dox ci seen xol yi man yàlla maa leen ko gën a jege pourquoi sénégalais yi bëgg a justifier ni par force dañuy setal Ousmane Sonko ci dossier bi ba mu set wicc loolu fan la ko sénégalais yi teg pourquoi ñun dañ koy setal muy benn ki koy setal laay waxal ki koy setal te maa moom a yem demuñu du ñu procureur du ñu juge du ñu yow ñun daal yow daal Ousmane Sonko neex na la. yow dalaa neex rek nga ni Ousmane deful fan nga teg loolu yaa ngi déglu dañoo wax pays démocratie lañ ne ku ne am nga droit wax sa opinion comme moom ni muy waxee ni pays pays démocratie la waa léegi yow mi ni tam Ousmane Sonko moo def. doo procureur doo juge yow doo ci lenn yow nga di Ousmane Sonko li ñu ko tuumaal Ousmane Sonko moo ko def kenn saa koo kuy wax loolu moom loolu moo wax fan la ko teg moo tax Sénégal bu ñu bëggee avancer nañuy maanu ci procès nañuy maanu ci suñu activité nañuy maanu ci lépp lu mu mën a doon loo tegul sa bët jullit dafay maanu inna allaha yamuru bil adli wal ixsaan mooy yàlla daf ñu digal ñuy maanu def lu tuub ba maanu te nekk ci ñun waaye nag fu ñu toll nañuy rafetal su ma taxawee ni man waaw li ñu tuumaal Ousmane Sonko dëgg la yow mi naan li tuumaal Ousmane Sonko dëgg la sariyeen nee na nañu loo dóor ba ngay bëgg dee ki tuumaal jullit te li nga ko tuumaal defu ko sariya nañu la dóor waaye ki ñu tuumaal tam muy moo mu nekk pombiteer bu yàq société est-ce que war naa nekk ci biti attention Kenza ki ñu tuumaal muy benn pombiteer boo xam ne dafa yàqu société ndax nee nañ dafa violé ñu ñu déedéet moo def ak deful ñu ne est-ce que kooku war nañ koo bàyyi ci biir société bi dëkk boo gis dafa am loi dafa am yoon loolu nag dafa am ñu ko gàddu. est-ce bi loolu dafa am ñu ko gàddu mooy suñu justice su réew ñiy àtte dafa am position bu ñu war a taxawee soo gisee souvent xam dee daa rek moom dégg nga ko ci ay waxam bi mu génnee moom Sonko mu ni li gën a yéeme mooy ñoom ñi ma waroon a laaj sax maa tourné di leen laaj. yaa ngi dégg ñoom ñu waroon a laaj maa tourné di leen laaj mu doon dossier boo xam ne nag Kenza dossier bu ñu war a teey la dossier bu ñu war a xool la waaye dossier bu ñu war a population sénégalaise bi la nit ñi dañoo sonn boo bëggee dégg dañoo fatigué on est ci problème mu Ousmane Sonko problème mu Adji Sarr yow sonnoo ci doon nañuy waxtaan rek. ñaata at Ousmane Sonko Adji Sarr Ousmane Sonko Adji saar mës naa wax benn jour ci émission bi ñuy def jommet ma ni leen problème bi bu ñu bëggee mu régler nañ jàpp Ousmane Sonko ak Adji Sarr ni leen ràpp ci benn néeg un mois ñu bàyyi leen fa ku ci njëkk a xoos sa morom rek ñu jàpp la tëj la kaso wax ji jeex. loolu dina yéeme de bu ñu leen fa bàyyee. exemple bu ñu leen bàyyi woon foofu ñoom ñaar di nga ci gis koo xamante ni dina def réaction jàppal ni kooku lu ñu ko tuumaal kooku loolu la. est-ce que yaa dégg. maa ngi lay la rek loolu lu doy waar. mais dégg ma ni la coow li bari na nañ leen bàyyi une semaine ci benn ne bàyyi fa caméra surveillance ñu xool kuy njëkk a déclenché est-ce que dégg nga fi may waxee waxin la rek laa ci jublu woon boobu débat débat débat la quoi ku ne ak sa gis-gisu bopp sa xalaatu boobu ku ne di waxtaan. ñaareelu question bi ñuy ñëw. ak ñaareelu question bi. mu bëgg wax ci justice ñu am lu ñu xam. Kenza yow jàng nga wala for nga wala dégg nga. problème mu dossier bi li leer ba leer mooy alaysa bi ak ahkamil xaakimin yàlla nee na doyen des juges yëpp naa leen dajale ku mës a doon doyen des juges ci Sénégal yàlla nee na bisañ ci naa leen dajale te tribunal ñett a fay daje ñett ñooy daje tribunal. ak yan. gis nga ñett ñi daje tribunal nañu xool ci dossier Ousmane Sonko bi ak yi ko giitu ak dossier yi waaj a ñëw. ñett ñuy daje tribunal yàlla nee na ñaar ñëpp safara lañu jëm kon kan mooy dem àjjana kenn kese yi dem àjjana waaw tribunal ñaar ñoo ci kenn ñett la ñett fay daje greffier président ak juge avocat ñoom ñëpp mboolem àttekat yi boo leen dajalee suñu borom tënk na leen ci ñett yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngal ñu ko nee na ñaar ñi safara direct kenn kott dong rek moo ci dem aljana xam nga mooy kan mooy ki xam problème mu dossier Ousmane Sonko nekk avocat wala mu nekk juge wala mu nekk procureur xam na dossier bu baax a baax a baax xam na ni lii ñuy tuumaal sawaay waay de wala lii ñuy tuumaal sawaay waay du sa waay de moom xam na ko mu àtte dëgg gi te yàlla tax te yàlla rek tax même buy tëj lu Ousmane Sonko mu tëj lu ko te yàlla tax. même bu koy ubbi mu ubbi ko te yàlla tax mu xam ni lii ñu koy tuumaal dañ koo tuumaal mais Ousmane Sonko defu ci waxu ci taqewu ci kooku ak jënd la jëm direct. dama laaj. loolu jafe na ci même réew de oustaz. mais dafa jafe moo tax tribunal doy waar moo tax ñoom seen métier doy waar ëllëg bu leen yàlla attee problème la ñu am ñoom moo tax yàlla ni ñu alayhi sallahu bi ahkamil hakimin yéen waa tribunal def leen lu leen neex. mais maa ngi leen di xaar bu yomal xiyaam yi am na télé bu tudd RTA mooy rajo télévision bu àllaaxira mboolem lu ngeen àtte woon dinaa ko àttewaat booboo ngi xaar ñoom booboo ngi leen di xaar. yal na ci yërmande moo tax yomal xiyaam dina doy waar trop problème yi am ñi ñu rey ci réew mi problème mu 14 yi ñi dee ñooñu. ci kaw 8 mars nga xamante ne dañ cee faatu. ci lan mars la woon sax date Euh, ci mois de mars mois de mars la woon. quatorze personnes yooyu noonu nga xam ne dee nañu ñii naan pouvoir bi la ñii naan xëy na ci camp Pastef la ñoom ñëpp ëllëg yàlla dina leen auditer moo xam le président de la république la moo xam Ousmane sonk la moo xam mboolem koo xamante ëllëg yàlla dina la auditer ci loolu yaa ngi dégg. kon loolu leer na tiitar ci suñu bopp oustaz ñaar ñiy dem safara nag. mooy ki nga xam ne moom xam na dossier bi xam na dëgg xam na ni Ousmane Sonko deful waxul taqewu ci mu fexe bañ jàpp ko tëj ko kooku safara direct la jëm. te jamono ji dafa bëri ñoo xamante ni ci liñ leen di tuumaal. defuñu ci laalewuñ ci takkewuñu ci. mooy dañu nga ci kaso yi tëdd. mais kenn xamul nu mu toll ñaata nit la ñu tuumaal te li gën a doy waar serment gis nga ñoom bu ñu koy def dañuy waat dañuy waat. mais ndax nit war nañu laa ger. moo tax yonent bi ni fa rajulul ladi arafa laaqa fa jaare bii fa huwa fi naar doyen juge bi nga xam ni wala avocat bi nga xam ni wala procureur bi nga xam ni xam na dëgg gi ba pare jël tànkam teg ko ci. ba àtte lu dul yoon yonent bi nee na kooku safara direct la jëm kenn saa yàlla na ci yàlla musal macha allah moo tax mu doy waar ñaar ñi safara lañ jëm ki xam dëgg gi daal di njóoy ni du àtte dëgg kii nag moom xamul sax daa jógee bitim réew ñu ne ko projet bi yaa am fit gaa yow lañ doon xaar lii yow rek sa waay yow rek yaa ko mën a tëj lu yaa ko mën a denclu wuñ ci kenn ñu ni mooy guerrier bi quoi waaw mooy guerrier bi moom la ñu war a teg ci kanam bu ñëwee àtte ko day kenn mënta fexe ba du daaneel sa waay est-ce que yaa ngi dégg kooku ñëw moom xamul liggéey ji riir mu fexe bañ jàpp nit pas ci problème Sonko bi rek ak fu mu mën a doon mu fexe bañ jàpp nit tëj kooku kaso yonent bi nee na kooku safara la jëm. kon ñaar ñaar kon ñaar ñaar ko kenn saa kon nañ def très attention ci dossier procès bu ñuy àtte yàlla nee na dossier bu ñu àtte ci kaw suuf danañ ko àtte yomal am dossier Sonko bii nag sénégalais yi ñoo ci sonn sénégalais yi ñoo ci maar aji saar bu fekkente ni li ngay wax am na yàlla xam na yonent bi alayhi salaatu wasalaam xam na malaayka yi ne sa ndeyjoor aqib ak ratid nga xam ne dara ump leen ñoom xam nañu lii nga wax dëgg la wala du dëgg ëllëg lay lépp yi leer Sonko yow tam li ngay wax su fekkente ni dëgg la ci yow malaayka yi xam nañu yàlla xam na aqib ak ratid xam nga leen xam nañu boo lëgee lépp dina leer mais sénégalais ñoo sonn ci dossier bi. macha allah sénégalais ñoo sonn ci dossier bi mhm. mu doon li nga xamante ne rek mooy kàddu oustaz Souleymane Diaw Talazus macha allah waaye oustaz dañuy wéyal ba tey ak suñuy question ak mhm. yow. ñu gis ni jour bi nga xamante ne si la war a amal lii audition Ousmane Sonko. Mhm. si lañu jàpp ay garde corps am jàpp googu ñu leen jàpp naka nga ko gisee. waaw xam nga euh, mbir mi toll na dimension boo xamante ni. mooy naa la ko sànq départ euh, ku dee ci marse <laughs> waxu olof la ku dee ci marché yaa tàgge sa bopp Ousmane Sonko waxuma la ay garde corps am est-ce yaa ngi may dégg mhm. waxuma la ay garde corps am de mhm. njabootam ak ay xaritam ak dëkkandoom sax ñu ngi ci danger ñu dëkk moom taqaloo ak moom kër. Mhm. ñoom ñëpp ñu ngi ci danger. lu waral ñu ngi ci danger li ko waral mooy ñi mu amal affaire pouvoir la amal affaire. doole la amal affaire ba tax na lu ko jege rek gars yi dañuy géem a jël sécurité mesure de sécurité ci loolu ñu demee ba jàpp ay nitam ngeen ñoo leen jàpp ak lu tax ñu jàpp leen ak ndax war nañ leen a jàpp ak pour quoi ñu bàyyi ba ci bis boobu ñu jàpp leen defe naa loolu la. mais dañ leen a jàpp ñu ni coowal cekki. moo tax ñu jàpp leen. est-ce que tamit doo woon gën ñu jàpp leen avant. wala ñu jàpp leen après audition Ousmane ko gannaaw coowul cekki moo tax ñu euh, jàpp leen. xam nga politique stratégie la gis nga politiciens yi nga gis nii est-ce que xam nga ne mburu foofu ko fariñ. di goolof boo diggee mburu foofu ko fariñ mboolem xeetu mburu yi lu ko fuur yi def lu mburu yi ute ci neex neexaay bàyyil xel ni ci fariñ dong lañ leen liggéeyee. problème mu fuur yi rek ñooy ute bañ naan mburu bi ya dàq mburu bi ya dàq mburu bi dàq mais lépp fariñ la. yow ku la yeewoon ba xaaju guddi yow kenn Kenza ni lay Idrissa Seck dina ànd ak Macky Sall di ko gëm. Hmm? Hmm? dama lay wax rek ku la yeewoon ba xaaju guddi ni la Idrissa Seck dina ànd ak Macky Sall ndax di ko gëm. du ma ko gëm parce que gis naa déclaration yu bëri yoo xam te Idrissa def na bien moo si xola milieu politique moo garaaw ku la yeewoon ba xaaju guddi ni la Talla Sylla dina dem kër Idrissa Seck di nga ko gëm. déedéet loolu moom xalaatuma ko woon. moo tax ma bëgg nga xam ni seen politique gu Sénégal les politiciens yi nga xam ñoo ne Sénégal seen xuloo seen xeex seen histoire dafa mel ni rek gaynde bi muy xëccoo bi muy bëgg a xeex li tax nit ñu war cee tey laa wax de dana nit ñu war cee tey dafa mel ni gaynde bi muy xuloo ak bukki gaynde bi muy xuloo ak bukki xam nga kan moo fa jaar ni day àtte mm. bëy xam nga lu ñu mujjee bëy mm. dañ ko reeree loolu mooy yi. politique gu Sénégal li tax ku mu mën a doon bu la benn politicien tax ngay xas politicien benn politicien bu mu la tax ngay xas politicien ndax politique gu Sénégal moo salte ngeen baal ñu ñu baal ma salte salte gu toll ni lu waaye wax tey suba mën na ko weddi lu waaye wax tey suba mën na ci amaat gis-gis lu waay mel tey suba mën na changé su ko defee nag yow yaay xam position bi ngay nekkee ñi ñu jàpp. su fekkente ni wàññi doole Ousmane Sonko rek moom moo tax déglu li ma de bu fekkente ni wàññi doole Ousmane Sonko moo tax ñoom ñu jàpp leen est-ce que xam nga benn affaire deux mille vingt quatre. bii di ñëw élection présidentielle bii di su fekkente ni yàlla ne Sonko moo war a doon président de la République Sénégal est-ce que xam nga benn affaire gouvernement wu Sénégal bépp stratégie bu ñu teg ci kàmb la leen yóbbu parce que yàlla nga koy waajal pour mu faloo. bu la yàlla nammee samp nga doon mbër mbër muy gañe fas yéene doon roi des arènes sëriñ bi lay daan moo dul am Sénégal. loolu mooy garab bu dee bu naree am. maa la ko wax garab bi na la doon pénc law bi du ko gis ndax pinc mi nag garab gi ko war a doon sonko la wala du sonko loo ci xam. xaw ci lu ma ci ñii nga gis ñii ñuy wax yépp xamuñu ndax deux mille vingt quatre sonko ko war a doon mais ay bu ko yàlla dogalee mu war koo doon. ñaar dërëmu Mali nit mënta fexe ba Sonko du doon président de la République du Sénégal bu ko yàlla dogalee waaye tey ma wax la benn affaire boo xamoon su yàlla dogalee ni Sonko du dugg pale siège ba du ko ñam. <laughs> loolu kon dina yéeme ci waa Pastef yi de. <laughs> déggoo ma gars yi jàng nañu alxuraan xam nañu li yàlla wax li may wax nii ñi ma ko gën ñi may déglu ni di seetaan ñoo ma gën a xam ni qulillahumma malikul mulk tuuti ko mënta tashaa wa tanzi'ul mulka mimman tashaa wa tu'izzu man tashaa wa tudhillu man bi yaddikal xayru innaka ala kulli shay'in qadir bu déggee loolu innaka ala kulli shay'in qadir soo ko déggee Kenza mooy yàlla nu mu ko neex ak nu mu ko neex ak nu mu ko bëggee la koy organiser ndax dooleem lu tout puissant c'est Dieu est-ce yaa ngi dégg kon Macky bu waree am troisième mandat yàlla ko doy waar la de waxu Sénégalais yi yàlla lu ci xool parce que danaan kii doyalaguma ci moom kenn mënta fexe ba du doon ba du ba du am troisième mandat déglu ma de waxuma seeni i constitution ak seen àtte man li ma lay wax mooy diine laa lay wax bu yàlla naree fal nit ak bu yàlla naree folli nit xam nga fu problème bi ne deux mille vingt quatre ngoonuk da xam ni Sonko mën naa am mu doon ci président ndax mag yi dina ko woo félicité ko ni ko gañ nga ma coow lépp fii la ne. <laughs> macha allah dégg dama ne <laughs> mille vingt 2024. ngoon nga nga xamante ni ak dimanche lay doon yàlla ñu ko fekkee ak bakkan. ndax bu Sonko gañee Macky dina ko ni kar téléphone Sonki Sonko je te félicite. ndax loolu Macky dina ko wax Sonko point d'interrogation waaye xam nga fu wax di ne ndax Sonko bu ko mag Macky duma amoon tam duma yu méttee méttee méttee ndax dina accepté wu nangu ci xolom ni ay na yowén def na li mu war a def yépp waaye franchement nag neexul ba neexul waaye waa di neexut a daan loolu daal day repoussé wu yëpp ci jàpp gi ñu jàpp li nga xamante ni mooy. waaw euh, gàddu ko waaw waaw waaw parce que tam. booy xeex ak sa noonu doo ko wóolu doo wóoluy xarakam doo wóoluy xaritam doo wóoluy am di jàmmam koñ bii la sa noonu dëkk boo fee dugg sax danga koy teggi kon ñoom nu ñu mën a def bu fekkente ne nag doole la ñu utiliser laa wax mais bu fekkente ne nag ñooñu dañoo def lu tax ñu jàpp leen loolu justice ak loi ñoom Sénégal ni ñu àttee ñoom ñoo xam seeni bagage su bopp lu tax ñu téye leen. ñu waralee amal benn événement. yu mel nii rek. ñu gis ni day jël vol génn réew mi. dafa ragal mm. nu mu demee noonu. Mhm. waaw man de dem naa pale benn yoon nag ma déglu nag sénégalais yi dañoo naqare waxal ragal nga ma wax ragal nga ma wax. ndax dafa ragal Sonko. que à chaque fois bu ñu waree euh, jàmmaarloo ak Ousmane Sonko. Mhm. dañuy gis ni day jël vol. dem naa palais benn yoon. foofu. yaa ma laaj ndax dafa Macky dafa ragal. Sonko nga ma laaj. ma la wax ni la dem naa pale benn yoon. jàkkaarloo na ak président wax naa ba mu reetaan man. yow mi yaa wax ba Macky Sall ree ba mu ree ndeysaan te gaa yi dañu ñëwoon Macky du ree mais man wax naa ba mu ko woon a photo loolu nga ñu ñu woon sax fu ñu photo mais wax naa ba mu reetaan daal loolu daal mun naa la ko wax waaye ki ma gis de du ragal de ku am fit laa gis góor. ragalul Sonko. ki ma gis laa wax yaa ma laaj ndax dafa ragal. Sonko ndax Macky dafa ragal Sonko loolu nga ma laaj. ma lay wax ni la man ki ma ki ma gis man du ragal. Macky Sall bi ma gis. te palais bokkut ak Macky Sall bi ma doon seetaan ci télévision ki ma gis nga xam ni fës tu la. dama ko jàkkaarloo ak moom nii koo kooku am na fit sa kooku góor yàlla la. dañu gis à chaque fois day jël vol dem. waaw parce que waaye xam nga fu problème bi. Sonko dafa bëri doole te jeunesse bi dañuy ànd ak. xam nga fu problème bi ne. Hmm. Sonko dafa yor jukkoy Moustapha Guèye Sonko dafa dafa gëm j'attaque je cogne et je gagne <laughs> yaa ma laaj de. yaa ma laaj entre Macky ak Sonko. Sonko la xam ni la. Macky Sall bi ma fekk man pale gis ko jëxërëtaan gaynde laa fa fekk góor piir ku du raf tekk lay def di déglu mag toogee chaise am boobu tekk lay def di la déglu booy wax yaa ngi dégg lii dama lay delluwaat question bi mais Sonko bi ma gis laa wax kii ma gis nii kii ñu naan mooy mooy Ousmane Sonko bi ma gis dafa gëm ca Moustapha Gueye bi muy doon mbër dëgg daan wax naan j'attaque je cogne et <laughs> loolu gis naa ko ci Sonko. loolu nekk ci Ousmane Sonko waaw loolu gis naa ko ci Sonko. xam nga nit boo ko miinul doo ko jugé. ki kii toog naa ak moom kii tooguma ak moom. Mhm. ki ma toogal nag laa wax. ki ma toogalul li ma gis ci moom laa la wax. ñu dem.